ñu di len dalal fi ci entretien manam jàkkaarloo bi ñu amal ak professeur Moussa Seydi di euh, chef service maladie infectieuse bu hôpital Fann bu Dakaro Ndakaaru euh, alaykoum professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax euh, di la wax ne nak tay nak lutax ñu invité la fi moy yow yaay topoto maladie nga xam ne du ñu am Covid 19 te ñu gis ne fani nak da nga génn ci media yi wax ne ko da nga légui dugal chloroquine ci traitement yoyu lan moy chloroquine. te lu tax nga commencé di ko jox maladie ngir nga mën leen faj ci feebar boobu nii wax Covid 19. waaw xam nga hydroxychloroquine njëkkoon nañ wone ne baax na day rey virus bi ci laboratoire waaye loolu doyuloon pour ñun moo tax xalaatu ñoon utiliser ko te waxoon nañ fépp ne amul dara lu wone ne garab gi baax na. Eh, te pour wax leen ci eh, misaal am na beneen garab bu ñuy traité sida boo xam ne mënoon na daf doon baax soo ko defee laboratoire mu rey virus mais bi ñu ko defee si nit ñi gisuñu si njëriñ waaye professeur Didier Raoult bu mu defee étude am gis na ne efficace na waaye daf ko def nag si malade yi bëriwuloon te wax dëgg yàlla loolu moo tax ñu wax étude préliminaire moo tax toujours naa préliminaire parce que soo bëggee sa étude mu am euh, doole bi mu war am il nga jël malade yu bëree bëri waaye si contexte bi ñu nekk nga xam ne dañ nekk si urgence nekk si daanaka guerre soo amee loo xam ne mun nga ko utiliser te du loor malade bi wala xamewuñ ko loor bu bëri da ko war a jëfandikoo mooy suñu xalaat ñun parce que garab bi nit ñu yàgg nañ ko utiliser moo tax ñu commencé ko jëfandikoo te commencé nañ ci gis sax ay résultats yu baax léegi nag après yeneen études yu ñëw dinañu wax ndax su malade yi bëree dinañ am résultats yu baax ou tax ñu jëfandikoo garab gi xam nañ ko bëriwul ay effets secondaires euh, mais nag leer na war nañ ko leeral kenn waru jël garab yi di ko jox sa bopp da nga bàyyi médecin bindal la ko sinon mun nga si am loraange kon nañ bàyyi di jënd garab yi non seulement di lor seen bopp te prescrire lañ ko ba pare di xañ ñi nga xam ne soxla nañ ko pour seen dund parce que garab bi dafa am ñeneen ñoo xam ne daf leen amal njëriñ si seen dund ba feebar bi tàmbalee ci Sénégal euh, ba ngay wax ni ngeen di tàmbalee di préparer pour jël en charge feebar malade yi da ngeen wax ne Sénégal dina am fanweeri lal ak juróom-benn ngir mën na hospitaliser malade yi tey xam na ne Sénégal am na lu ëpp téeméeri malade yi nga xam ne ñu ngi am feebar boobu ñu wax Covid 19 naka ngeen def pour organiser wu pour mën a toppatoo ñi nga xam ne recensé neen leen te am nañ feebar bi. en fait euh, fukki lal ak ñaar lañu amoon. pour yóbbu ko fanweer ak juróom-benn il fallait que ñu defar ben euh, ay yeneen rapidement dañ ma diggoon ne mënoon nañ ko def si semaine waaye finalement gis naa ne liñ ma waxoon loolu nekkul donc day jël temps waaye ministère de la santé jël na ay matwayam, pour ñu bañ am problème yu mag si loolu si loolu la nekk fan yi yëpp ba moo tax hôpital de Malte dañ fa am lu ëpp euh, ñaar fukki lal ak jam ñaajo hospitalisé nañ fa lu ëpp juróom fukki malade déjà jam ñaajo non pas jam ñaajo dalal jàmm am nañ ko tey foofu dañu fa mën a jël juróom fukki malade Touba aussi am na ñu fa ñu fay jël gis ngeen Ziguinchor it commencé nañ jël ay malade donc ñu ngi jéem a adapté wu waaye li war rek mooy lal yi di di ñëw balaa malade yi di ñëw parce que malade ñëw fekk lal amul loolu moom musiba bu rëy la donc noonu la ñuy adapté woo pour l'instant chaque fois rek ñu xool naka la ñu jëlee beneen place def ay malade di leen faj cas yi ngi gis ne bés bu nekk su ministre de la santé génnee dañuy gis ne cas chaque jour mu chaque jour dina am cas te li ñu si mën a seetlu dina am chaque jour cas importé dañu bëggoon nga wax nu lan mooy cas importé ndax ñu bëri si seen xalaat cas importé mooy doomu bitim réew maanaam ay tubaab wala leneen la xam ne duñu doomu Sénégal est-ce que mon nga nu indil ay leeral. de toujours ay gan léeg-léeg ay gan lañ léeg-léeg doomi pays yu bëri. Les malade malades nañ fi européens des sont nañ mais am na que nous nationalité réew am nationalité Sénégal doomi Sénégal su ñëwee nak dañ ko wax importé wa kon ñu bëree si ñom wa Sénégal nous lañ yuy dund wala démon fa vacances wala lu demee donc dañu importer virus bi du nit ki mo nekk lu mais jàngoro bi moom moo ko indaale si réew bi loolu rek la tekk nit ki ameewul feebar bi Sénégal waaye feneen la ko amee dugg avion ak virus bi parce que virus foo jaar mu ànd ak yow ba fi nga yegg si loolu la rek. waaw ñu ngi naan feebar bi léeg day dem ba metti di nga xam ne day prise en charge bi day jafe trop euh, ñu koy waxee cas grave est-ce que Sénégal fu mu toll nii am na ay cas grave. waaw cas sévère am nañ ko mais du ma wax cas grave parce que man si sama euh, discours cas dama koy jël rek pour cas yi nga ne dafa nécessité ñu utiliser machine pour mu nooy am nañ cas ne dañu soxla par exemple ñu defal leen oxygène rek cas ne dafa soxla ñu defal ko oxygène donc dañ koy defal oxygène di ko su soxlaa nag ñu defal ko machine pour mu nooy ñu door ko defal machine donc cas yooyu di soxla machine pour nooy moom amaguñ ko waaye cas yooyu nag lañ war encore gën a xel parce que seen faatu dafa gaaw soo leen fajul presque ñoom ñëpp ñooy faatu cent pour cent daanaka nga nga war a xalaat soo leen fajee soo moytul cinquante pour cent sa dinañ si faatu kon ñoom lañ war a gën a bàyyi xel fi mu ne nii Europe nekk nañ ak États-Unis di tànn ndax kii la ñu jël wala kële la ñu jël parce que amatuñ machine yu doy donc nit ñaa ngi faatu di faatu di faatu parce que machine yu doy donc machine doyul foofu ñun mun nañ am machine yu doy munuñ ko am moo tax nag ñu xam ne mbir bi ci prévention bi la nekk nañ fexe cas yi bañ a bëri pour l'instant ñu ngi gere situation mais comme ni ma ko waxee tant que dépassé wu ñenn cas yi incha allah ñun dinañ ko gérer nu mu waree waaye am na fu muy defaat dina ëpp suñ capacité du ñu am fu ñu leen def wala suñu amee fu ñu leen def jumtuwaay yu war pour ñu traité leen duñ ko am wala garab yi mun na manqué wala leneen ak leneen problème mun na am donc bu ñu xool rek ne amul décès ba léegi ñu ne non kon feebar bi amul benn gravité déedéet. tant que cas yi bëriwul amul lu ñuy tiit comme lu ma doon wax mais comme lu ma doon wax su gënee bëri nit ñi war nañ tiit bu baax te fi ñu toll ni tiit bu rëy jot na parce que communautaire yi mun nañ fi jékki-jékki am 1000 si benn bés loolu yëpp loo am la te lu ñu gis la ñoo xam dañoo jékki-jékki benn jour cas multiplié par 10 en Europe te nga xam ñoom duñ dund comme ñu ñuy dundee waaw ñoom dañ naa feebar benn nit lay wala ba ñaari nit ñeneen ñi nee na mun na nekk juróom benn nit ba ba juróom-ñeenti nit mais fii ñun am nañ benn nit bu wàll fukk ñaar fukki nit ak juróom kon boog nañ xeex feebar bi dès maintenant ku ko doyee dal rek xamal ni musiba bu rëy mu ngi xaar réew loolu moom dëgg la. cas nag du ñëpp a koy am ndax liy faral di indi cas si lu ñu jot a jàngat si média yi nee nañ cas li koy indi mooy eh, nit ki day faral di am beneen jàngoro wala beneen feebar eh, si yaram gi loolu mooy faral di indi muy am cas ndax eh, loolu noonu la demee wala lan mooy leeral bi si xalaat boobu nga xam ne nit ñi am nañ ko si. mun na am beneen doom jàngoro mun na am beneen feebar par am nañ cas yoo xam ne dañuy am lu ñuy wax beneen jàngoro day nekk si biir deret bi soo ko gisee teel ko xam. traité ko amul problème mais soo ko traité wul feebar boobu moo koy rey de du Covid 19 bi ko fi indi loolu day am am na ñoo xam ne dañu am insuffisance rénale démb rek am nañ si kenn soo ko traité lu mu baax a baax te bàyyi waxee la insuffisance rénale bi insuffisance rénale mun na indi musiba am na ñoo xam ne dañuy am tension am diabète am hypothyroïde loolu yëpp da nga ko war a jëlaale en charge kon faj bi faju médecine de tous les jours la. waaw da nga war a tenir compte si loolu prévenir nag ay complications léeg nga gis ne kii soo ko defalul lii mun na am complication suba nga def xool li ngay def donc ni ngay fajee malaat règle médecine daal lañ fay appliquer li fiy changer mooy environnement bi parce que soo deful li nga war a def mun nga wàll sa bopp wàll yeneen médecins yi liggéey ñoom ñoom ñu feebar musiba fekk leen après nag système de santé bi dootul fonctionner suñ demee ba nga xam ne médecin yëpp tëdd nañ wala infirmier tëdd nañ comme nu Ebola ni mu amee si yenn réew yi donc loolu il faut ñu xam ne responsabilité boobu mag a mag la am feebar bi di ko nëbb wala bañ a faju wala di saqat di tusooli bañ a jël sa précaution pour bañ a wàlle nit ñi moom moom chiffre yaa ngi wax bu baax fan yi ndax chaque jour ni ma la ko tàmbalee waxoon sànq rek euh, nombre yi maa ngi yokk chaque jour nu dégg ay fukki kaa fi fukki kaa ak ñaar ndax yaakaar nga ne Sénégal mën na toll comme yeneen dëkk yi nuy dégg dem ba nombre bi jéggi dayo ba nga xam ne dootuñu daanaka sax mën si dara. lu mën a am la te loolu sa la gën a xaar. lu mun a am la te loolu la ñu gën a xaar moo tax ñu war a gën a góor góorlu si prévention bi suñ góorgóorloo si prévention bi nu mu waree yàlla mun nañu musal si loolu waaye su fekkee communauté bi góor góorgóorluñ si loolu loolu dafay ñëw lu ma la wax mun na ñëw samay dafay ñëw am na réew yoo xam ne dañoo jékki-jékki am plus de multiplier par 10 ñun su jékki-jékki am fi 1000 cas si benn bés duñ ko mun a gérer. xanaa mu nekk cas yoo xam ne amul yenn forme yu sévère wala forme yu grave même su amul forme yu grave yu nécessité respiratoire mais su amee yu sévère am yenn complication ak du pour nga am médecin yu doy yu am capacité euh, jëleen en charge correctement du yomb parce que am na cas yoo xam ne spécialiste maladie infectieuse ñoo ko mën a jël en nu mu waree te ñu bëriwuñ si réew mi suñu leen di compter est-ce que est-ce que mën nañ fukk sax donc loolu il faut ñu def attention si loolu bu xelu nit ñi dal si cas yi du augmenter tant que bëriwul xel yi mun nañ daal te li ma wax waxoon wane na ko ba léegi yàlla musal nañu quand même mais su continuer musiba bu rëy day am de loolu c'est suir amul beneen pexe kon nañ fexe mbir bi yem fii

moy ñun ministère de la santé et de l'action sociale té si la bolé sama bop ak communauté bi il faut que ñun ñu def suñu liggéey nu waré suñ ko deful ñun ñoy faj malaay suñ leen fajul nu waré waree keneen mënu ci dara il faut que ministère de la santé aussi mu joxé moyens suñ laajtee moyens suñ ko joxol ñu nit duñu mëna liggéey toujours nak day am un hiatus entre ñun praticiens ak ñi nga xamné ils sont au niveau de l'administration xawma ndax RTS non la wala du noonu da ngay laajte dara soxla ko léegi léegi kayit bi il faut mu jaar fii signé ko fii dugg fii génn fii ñu toog di xaar voilà xaw ma yan procédure je ne sais pas un administratif mais en situation de guerre en situation d'urgence loolu moom warul nekk donc côté boobu man toujours maa ngi si wax pour ñu gën a def attention si côté boobu donc ñoom suñu deful gaawaay boobu it dina fekk seen seen seen liggéey aussi mu manqué donc ñun war nañ ku nekk fi nga nekk li nga war a def nga def ko nga def ko fii ay signature ay virus bi do xaar loolu de te fetel bu la tiim nga naan naa jaar fi jaar fële mu dem fi tempon fële ainsi de suite il faut trouver un système assez rapide donc foofu il faut ñun ñëpp ñu góorgóorlu si soo demee aussi au niveau de la communauté ñu naan feebar bi amul ak euh, di génn nu leen neexeek yu demee noonu est-ce que xam nga am na pays yoo xam ne dañu dañu wax sax kenn waratul génn sax di dem entrainement si corniche nga xam sport ni mu amee importance ci yaramu nit pour wax la génn bi niñ koy moytoo donc li may wax mooy euh, askan bi des leen seeni kër ku amul soxla boo xam ne bu am solo la bul génn soo génnee bul jege nit koo xam ne xamuloo ko mun na am feebar bi mu tisool wala saqat sa kaw soo ñibbisee nga raxas sa loxo saa yoo gisee nag situation boo xam ne da ko war a raxas sa loxo nga def ko lu mel ni balaa lek lekk bepare. lekkee ba pare soo jógee toilette balaa ngaa togg So toggee soo toggee ba pare yooyu nga raxas sa loxo wala ngay tisoori nga jël mouchoir teg ko sa kanam jël ko sànni ko si poubelle loxo set loolu c'est important ñu respecter ces mesures là suñ ko respecté wul ah du baax waaye suñ ko respecté yàlla mun nañu dimbali pic bi nga xam ñun ñëpp ñu ngi koy xaar mu am waaye ni muy demee nii su continuer pic bi mun na am de te su amee mun na jékki-jékki benn bés ñu am fi 100 cas te su boobaa cas yi mun na bëri ay cas xam dañuy soxla machine te machine yooyu doyul fenn si àdduna bi c'est une pénurie mondiale doyul fenn si àdduna bi te loolu su bëree musiba bu rëy lay nekk si réew mi kon ku tiitul si mbir mi rek da amul conscience avant muy bëri comme li ma la wax ne xel yi daal amul problème preuve bi mooy on est à 100 cas yàlla dimbale nañu te létalité de 2 3 Si on a 2 3 de décès ça va parce que c'est dans l'ordre normal des choses mais si ça continue am na nombre bu mu yegg du 0 donc des leen seen kër li ñu bëgg mooy ñu génn avec 0 décès loolu lañ bëgg mais la communauté est yéen a nous jërëjëf euh, professeur Moussa Seydi may euh, chef service maladie infectieuse bu hôpital FAN bu Ndakaaru yéen euh, téléspectateurs yi ngi leen di gërëm di bu a baax de wax bi ñëpp dinañ am jàngat bu si feebar boobu lëmbee àdduna di Covid 19 li ma la si gën a encore li professeur wax na ni raxas na di set saa fu toll na set utiliser alcool gel bi nga moom moo nekk ci marché bi ngir ñu bañ a ak doomu jàngoro bi muy Covid 19 te ñu respecté li ñu wax muy euh, toog couvre feu bi vingt heures ba six heures du matin ngir yàlla na ñëpp toog seen kër yi ñu ngi leen di ñaanal ak